ayca de retour je suis un numéro qui nga xamante star à l'instant comme on a l'habitude de le faire képp kuy star képp kuy ndaanaan di waajal événement Dakar instant di ciy fas yéene qui est avant et après nee naa tey Mbène Diatta Seck a ñuy dalal moom mi nga xamante le 21 ak li nga xam ne moo di décembre dañ koy bàyyi mu nuyoo au micro de Dakar instant Mbène ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum maa ngi Dakar instant. Mhm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah, di leen uh, sargal. Mhm. di nuyu waa àdduna bi di nuyu waa Sénégal Euh, di ñaanal ñi nekk ci lali hôpitaux yi yàlla may leen wér. allahumma ñi caabi fete ginnaaw yàlla defal leen jàmm ba génn fa. di ñaan jàmm ci réew bi du nuyu ñëpp di nuyu waa àdduna bi yëpp. amiin macha allah ñoo ko déggandoo tey moom mooy suñu gan moom mooy suñu star comme on a l'habitude de le dire képp ku ñu dalal jour boobaa yaay doon suñu star mbenn ngay waajal événement bu rëy ñu jëm ci mu nekk euh, le 21 décembre fële ca théâtre national Daniel Sorano. Hmm. lu waral loolu. waa xam nga nit moom boo jàngee ba mu yàgg rek. Mhm. soo wàccee war nga dem tari. kon donc spectacle lu dara lu dem rek tari. Mhm. waa mbenn day dem Sorano pour tari. Mhm. waaw mag ñi toog. ma tari ñu xool ba xam mokkal na mokkal naa mokkut parce que à chaque fois maa ngi jàpp ni man. mokkaluma maa ngi jàng. est-ce que nekkul ñàkk mokk gi moo taxoon boobu ba léegi gisuñu benn. waaw mën na nekk loolu tamit ak euh, bañ a yàkkati ndax si ñàkk a mokkal gi yëpp teewul tamit ñi ngi dem Europe euh, mhm. di fa def ay tournées yi nga xamante ni moo gën a mag ci tournées yi mhm. ci loolu laa doon participer mhm. nekk en Europe nag tout le temps ñi ngi dem foofu nit ñëpp di ma réclamer fii lool moo tax ren nag ma ni il faut mu pour euh, tari dal mhm. parce que ça bu ñu laajtee anam ñu né ben dafa dem voyage. waaw ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy li tax ma réew nga way ko mun nañu presque 1 an sénégalais bien avant clip bi di génn. Mhm. dañ ko doon challenge di ko def tout est ce que nekkul la fan si tax nga clip ko. wa fan si ñoo tax ma clip ko parce que dañ doon réclamer à tout moment. Mhm. sama benn frère bu tudd Ibou. dañ ko doon laaj euh, clip bi kañ la clip bi kañ la. légui nak daaw bi ma paré tourner ma dem sama benn kër copine France di fa maa ngi ko nuyu de passage maana Seck mhm. chéri Diagne mhm. ni wala khadim bay mu ma mun il faut nga def ben vidéo mhm. nga dougal ko sa wax leen ñu leen que ni yaa ngi ci préparation clip bi pour ñu man ci bàyyi xel parce que à chaque fois ñi makoy réclamer di ko réclamer dama obligé def ben vidéo pour dougal ko kon donc loolu wane na ni ñoom am nañ fu ñu toll ci man. Mhm. loolu nag moo gën a tax ma def clip bi. Mhm. pour génn ko waaw. Mhm. Euh, succès boobu lu mu def ci yow. waa sant yàlla gën ma apaiser. waa euh, succès bi daf ma yar. ndeysaan apaisement macha allah waaw daf ma gën a yar. ma gën a dal parce que. bu ci nekk li nga doon suñu borom mooy dogal. dëgg la mais yéen euh, fan si ñun ñoo tax ñuy def. donc kon daf ma gën a dal. changé ci man dara. lu mu fekkoon ci man. Mhm. daf ko gën a. daf ko gën a wàccee daal daf ko gën mhm. aussi ñu tamit ñu nemmeeku ci li nga xamante ni moo di Soyson gannaaw bu ñu gisee répétition yi lu ci ëpp mbenn day yeete. day mhm. sensibiliser lu tax loolu. waaw xam nga nul n'est parfait. kenn matul. mais man mi sax tey mën naa toog wax ak yow loo xamante ni. peut-être duma ci bàyyi xel fekk. gaañ naa nit. xam nga li may wax lépp pour redresser nit ñi. man en personne. su ma jàppee ni jubuma sax. Mhm. waruma way pour dresser nit ñi. mais dañuy wax pour nit ñi di déglu. Mhm. kon donc ñun ak yéen la. Mhm. bon des fois wax dara loo xamante ni di nga ci laal nit. dëgg la mais man pour yeete rek la lool rek moo ma tax a jóg. ndeysaan ko déggandoo nee na pour yeete dong moo tax muy daal di sensibiliser képp koo xamante ne da nga koy bëggee wala sax boo ko bëggee wut comme lu ñuy wax saa su ne ñoom ay porteurs de voix lañ ba tax ne fu nekk la ñuy waaye itam te nu nekk lañ koy defee. Mm. dañuy ñëw sa relation ak Pape Cheikh Diallo.

Euh, national bu perdre du doon def Pape Cheikh ñoo di ñu def présentation bi quoi mhm. ki lañ xamante depuis deux minutes ba léegi. man ak moom. Mhm. loolu moo tax ma woy ko. Mhm. rendre ko hommage. Mhm. dañoo gis li nga xam ne mooy euh, li tax ma réew mën nañ ne nit ñëpp ci moom lañ ko déggee. parce que moom daf ko toogoon ci otom daal di koy def vidéo di ko challenge ci nekk naan lan moo dama koy sargal bu baax incha allah. Mm. ay ci tey jii le 21 yan artistes lañ mën a xaar sur scène ak mbër. waaw man daal woo naa ñëpp woo parce que soo limee. da te dafa am ñoo xamante ni dañu sonn ci man. Mhm. ku ci mel ni sama yaay Fatou Géwal. Mhm. ah Ndeye Fatou Ndiaye. Mhm. sama doom moom i sekk. waa Sen TV ñoo couvrir événement bi. moo jël lépp en charge. macha allah ngeen gis ci mbedd yeeg. yëpp moom la. macha allah ma koy nuyu di ko ñaanal. Alima Ndione sama rak sama xarit. mbokk ndey Zara am jigéenu Cheikh Sarr ñoom ñu ci lépp. Exades. di jëkkuwul kenn toogul ñoom ñëpp. moo ñëpp a ngi wax. télé yi ñëpp ngi wax. kon donc man mënu ma leen fay. Mhm. yàlla moom seen fay yal na leen fay. allahumma amiin barke Seydina Mohamed. amiin macha mhm. allah dégg ngeen baat bi dafa mel dafa sonn dafa nekkoon ci li xamante ni moo di répétition yi dañ lay bàyyi nga jox kàddu gu mujj gi bu ko defee ñu eggali ko le 21. waaw kàddu rek. Mhm. yal yàlla defal jaam allahumma amiin. yàlla laf cat. di leen waxaale tam benn message. que ni leen sama ay billets disponible na maa koy jaay en personne. même bu fekkee dem na ba jour ji mhm. ñi jënd ticket. Mhm. ñi am ticket bien avant que jour bi. Mhm. ak ñi dem di jënd billet pour dugg. bokkuñu fu ñuy jaar. d'accord tamit ñi taxawaalu ci mbedd di jaay ay billets. joxuñu ma du samay bie lu leer pour mu leer dama jël samay bie sécuriser ko. am naa ay ñu may jël. ay om de tenue yoo xam ne ñu ngi taxaw. képp ku taxawaal foofu di jaay billet. dëgg la boo ko jëndee doo di nga am problème. ranger ñi am billet ñi ngi nii. ranger ñi nga xamante ni. ñoom ñi ngi ñëw pour jënd bi ñu jaay leen ci jour bi mhm. ñi ngi nii mhm. message boobu laay mhm. parce que neexul nga sonn def sa ay billet ñu pirate ko di def n'importe quoi baaxul nañ bàyyi loolu parce que ku ci nekk askan bi moo tax ngay dem kon nan jàpp leen rek kàddu gi am na solo lool Mbène Diatta dégg ngeen lu mu wax mu lancé message bu intéressant donc képp koo xamante ne bëgg nga billet yi Mbène joxel numéro bi. 77. 512. 39. 25 mooy sama numéro. Mhm. mais ku ma oo WhatsApp nag connecté wu ma. Mhm. parce que mënu ma nekk ci lii nekk ci lii. Mhm. boo nekkee Sénégal war nga mën a woote appel normal. d'accord voilà nañ may woo appel normal man ku bippé sax dina la wo ndeysaan ok machallah allah ko jikko talima yor kep ku ko bippé bëgg ci li nga xamantene modi walum tigé soko ticket inshallah ko woowee incha allah ak fépp fépp foo mënti nekk ci aduna mu daldi la koy baxé donc nous vous donnons rendez-vous inshallah allah rabi le 21 décembre au Grand Théâtre avec ben Diatta Seck. Dakar wa ben famille bu Tivaouane nak ñi ngi ah, ñew ñi ngi wàcc. def nañu mobilisation bu mag bu Saint-Louis. ñu ngi ñëw daal. macha allah voilà ben beaucoup famille partout.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 c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Waouh, c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam le jëm Inshallah, allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke wax ci waa Dakar instant. Waouh, Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal a siiw comme ñëpp. looy instant. Dakar a ngi instantané. boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy sinap. moom Instagram. Twitter. moom Dakar instant. Dakar tout instant.